Euh, Samba Bathily Diallo ñu ngi lay nuyu. maa ngi leen di fay. yow yaay maire Ouakam ñu am mbégte dalal ci matinalu réew mi euh, monsieur le maire euh, ñu bëggoon xam coronavirus bi fan la toll foofu ci Ouakam ay fan a ngi ni ngeen am seen premier cas ñu bëggoon tey am taxaw seetlu gi ginnaaw premier cas boobu. waaw d'abord damay sant yàlla di wax ne ah yàlla ñu dimbali ay fan a ngi nii lu juróomi fan ñeenti fan juróomi fan yàlla mu ngi dimbali amuñu cas cas bu bees mooy li situation bi daal dal na fi ñu toll ni ñuy ñaan yàlla mu jëm kanam. waaw euh, yéen a ngi ci euh, ñaata cas fi mu toll. ñu ngi ci fanweeri cas ak ñaar fanweer ak ñaar ci ay nit yoo xam ne mooy yu ko fi am ci fanweer ak ñaar yi tamit fukk ak juróom benn wér nañ. ba dellu seen kër mu des. fukk ak juróom-benn yu ñu ñaan yàlla mu wéral leen ci lu mu gën a gaaw. Hmm. loolu mooy lii fi am si si yooyu ndax mun nga ñu wax nu mu demee gis nañu ne euh, propagation bi dafa gaaw lool ci senegal mais Wakaam rawatina ndax fi ñuy wax benn kaa ak fa ñuy weesoo fukk ba yegg ci fanweer dafa gaaw loolu lan moo waral euh, fanweeri yooyu ci diir bu gàtt bi. xam nga loolu ñàkk sens rek moo ñu xaw a ndax xam nga am dafa am ay dafa bari ay ay ay lii tubaab bi wax quartier résidentiel mooy foo xam ne ñu man seen bopp daal ñoo fa dëkk dafa bëri mm. juróom-ñeente yu jëkk yi noonu la mel ñoo xam ne dañuy dem tukki ñibbise am ka waaye ñu tamit yàlla def na wàlluñu kenn ndax ñu amul dugg ak génn lañ waaye bii nag bii indi coow li kenn nit mën naa wax moo indi moo indi la kenn daal moo jógee tukki wàlla juróom-ñaar ci biir këram juróom-ñaar fukk ak benn loolu boo boolee moom ak ñooñum wàlla dafay doon ñaar fukk ak juróom-ñett mu amaat yeneen bi ñu jëlee xam nga bu ku am ñi ko am ñii ñu seen contact yëpp dañ leen di jël yóbbu leen isolement mhm. ci biir isolement boobu matoon nañ téeméeri nit yu yóbboon isolement ñaar ñoo ci am ñoo ko ci amaat te ku njëkk ki joge woon voyage moo wàllaat benn couple mm-hmm. xam nga muy fanweer ak ñaar yoo xamante ne yu ko amaat la benn bi moom koo xam ne dañ ko testé le six ci contact yooyu kooku la ba tey ñu testé que le six le le vingt six le vingt mais xam naa liggéeyu nit moom xam nga toujours dina am ay njuumte ñu yeex a indi test yi bi ñu indi test yi fekk moom am na am na te waxuñu ko woon ñu indi que le six donc kooku biñ ko waxee ñu ne dañ defaat test yi ñu defaat test fekk wér na mm. def nañ timit xool entourage am yëpp topp kii mais ke gisuñu daal ne ci ñi yaakaar ne ñooñu ñu ñu mu toogal la ko si am wala ñi mu dëkkal walla yooyu ñu yaakaar ne foofu la yem ndax mu doon dox soxlaam ndax kooku feebar bi tëralu ko yàlla na fekk wàllu keneen bu wàllee keneen cas communautaire lay doon mais boobu wax léegi kenn déclaré kon ñu ngi jàpp ne yàlla def na sutura jutul wàlla keneen donc daal loolu mooy évolution kaay yi ba mu nekk fanweer ak ñaar yàlla dimbali nañu fa fukk ak juróom benn wér nañ ñuy ñaan yàlla mu continuer yan matukaay ngeen jël euh, ngir euh, fegu ci jàngoro ji wax nga ni bala muy dugg si sax commencé woon ngeen mais fi ne nii lan ngeen jël ci ay matukaay ngir mucc ci coronavirus bi xam nga ñun moom maal li ñuy wax ñàkk sens rek loolu ndax commencé woon nañu sensibilisation commencé woon nañu aussi euh, boo demee ci mairie bi ak service am yi boo demee gendarmerie mooy fii am na institution yëpp la ku fa laa dugg jël sa température raxas say loxo mu hôpital yi yëpp waaye bii loolu amee li ñu jëkk jël mesure mooy ñu tëj marché wakaam parce que mbooloo bi fay daje dafa bëri ñu tëj marché wakaam bi euh, fekk lu jiitu loolu jëloon nañ mesure yoo xam ne mooy bu quatre heures jotee six heures du matin ba quatre heures ci la marché bi di tijji bu quatre heures jotee mooy seize heures si ngoon ñëpp dañuy wàcca mais bii loolu amee ñu tëj marché Wakam tëj tamit euh, commerce yi nekk ci grand artère yëpp mm-hmm. yu marché bi yooyu yëpp tamit dañ leen tëj commerce yi raxas marché yi saupoudré dëkk bi ñëw saupoudré waat marché bi saupoudré nañ ko daanaka ñaari yoon mm-hmm. mais saupoudré mooy li ñuy wax suur si ñun suñu langage def ba nga xam ne pour rey doomu doomu doomu jàngoro bi si biir Wakam def dispositif de lavage de main mooy boo ñuy raxas say loxo tey wakaam quartier boo dem doo ko dugg te raxas lool sa loxo yi dangay da raxas say loxo pompe doo dugg boo jënd waxi waxi waxi no marché moom forcé la ñaari marché wakaam yëpp forcé la raxas nañ leen ba pare jëlaat nañ dimanche bu jot dañuy arrêté marché du am donc altine ba samedi bëgg jënd mën noppalu day tax dañuy mën a suñu marché yu ba mu set koo waat ci d'accord nañu ak service d'hygiène ne chaque dimanche ñu ñëw pompe waatal ñu aussi suñu marché yi yooyu mooy yoo xam ne daal jot nañ ko def. Hmm. alors euh, bu marché bi xëy na di teel a tëj wala ñu arrêté yenn mbir yi du ñàkk njeexital aussi ci euh, li nit ñi daan am ci njaay mi euh, ngir dimbale nit ñooñu lan ngeen préparé. waaw ñun moom pare nañ comme jënd nañ ci stock yi ñu ngi ko denc euh, comme waxam dafa am ay com dafa am comité communal am ay comité de quartier dama ne pour mu am transparence du maire bi mooy tànn kii mooy am ak kii du am quartier yi ñoom ñooy tànn yónnee bu yónnee ñu jox ko conseil communal bi conseil communal bi vérifier liste bu si jaar yoon ñu commencé jox waa waa quartier boobu mais du ñun ñooy ñooy tànn donc pare nañ liggéey boo xam ne nag bu sew la bu ndax nit da kay sant am na si ñoo xamante ne du ñu jubal dañuy bëgg a jël seen waa kër yëpp bind leen bàyyi koo xam ne ku ko yelloo la moo tax bii liste yi ñooy man xooluma ka mais nee naa leen xam nga ñun xam nga am xamante nañ mhm. bu ñu paree nañ ma indil yëpp ma vérifier bu ma vérifier bu si jaar yoon rek ñu ñu ñu ko ndax ñoom ñoo ko yelloo. sànq aussi yaa ngi wax ni su ngeen defarum masque bu ko defee bu sottee ngeen mën kaa yoonal ñëpp di ko takk. waaw xam nga marché Wakaam ñun commerce yëpp dañ leen imposer ma masque. Hmm. ma Wakaam commencé na ma malay commencé na ñun ñoo leen jox masque yi ñuy yi commerçant yi di di di di takk ku ko takkul it doo jaay. ñu ñokki mais dañu passé loolu dañu ne dañuy defar euh, juróom trois cent mille mooy. juróom benn fukk junni. Hmm. masque pour que wakaamaa bu nekk mën a am ñetti masque loolu buñ ko paree buñ paree téeméeri junni yi rek muy cent mille yi damay jël arrêté boo xam ne wakaam ku ku fi dox da ngay takk masque parce que gis nañ ne masque yi. dina wàññi en tout cas progression feebar. masque yooyu ñaata la yittewoo ci budget maanaam ci xaalis. defe naa dina mat juróom ba juróom benn million parce que. jëluñu ko d'un seul coup hmm. dañuy def lu ñu soxla rek ñu ñu ñu jënd ko comme tailleur yi tailleur wakaam yi ñoo koy ñëw te fayekuñu ñu dara yi donc au fur à mesure la ñuy la jënd jëndagum nañ ñaari yoon hmm. séddale ko. mais yooyu xam nga man du ma ko gérer directement. Mhm. comité bi moo koy gérer directement xanaa après ma ma dem laaj ku yi après ma ma ma ma dellu si wax la. Mhm. ñii waxam am na ñu participer ay tissus am na ñu participer lu ne moo tax. doo ko mun a xayma de de de de man waaye nag mën naa la après ma wax la. d'accord ñaata la ñu dépensé gum ak ñaata la ñu xayma ne loolu lañ ci. incha allah le maire beneen problème aussi bu am mooy euh, clando yi nga xam ne ñooy daw diggante Wakaam Liberté 6 jamono yi weesu dégg nañu sax waa Liberté 6 euh, doon ci euh, ñaxtu ba ni woon dañu koy clamer seen maire Santy Agne yow ci sa wàll ban matukaay nga jël concernant clando yooyu. ñun moom ñeenti weer laa jël arrêté interdire leen ñu daw Wakam ba gendarmerie doon na ci liggéey liggéey bu mucc ayib jotoon na ci jàpp oto yu bëri ñu signante ak Dakar dem dikk benn convention boo xam ne moom mooy remplacer loolu mais SICAP la tardé woon mm-hmm. ñoom ñoo deful woon seen arrêté loolu moo tere mu mu commencé ba mbas mi am bi mbas mi am yi ñu gën a accéléré ma ne gendarmerie xëñ na mënul nekk fu ne waaye ñun nag comme feebar bi def fi bëri dootuñu nangooti ñoom ñu daw fi muy ñoom muy kalandoo yeneen yi hmm. moo tax wakaam boo ñëwee tey kalandoo daw fi parce que duñ ko nangu kalandoo bu fi daw ñu ñoo lay arrêté suñu bopp doo fi daw hmm. yemuñu si loolu aussi arrêté bi ministre bi jël wax réglementé ni ni oto yi waree chargé oto bu kasi deful tamit duñ la gisee di lay arrêté ne la wàcceel say client gis naa sax ku am vidéo naan maire Wakam dafa autoritaire mooy dugg mooy contrôler boppam <laughs> ay ree la ma def dama xamante ne duñu seetaan ñun suñ dëkk bi ak feebar bu bëri bi mu fi yokk ndax bëgg lu neex benn sopor wala lu bëgg lu neex benn nit loolu c'est irresponsable fii daal wakaam fii mm. luñ bëgg moo fi am li fi jot am si ay cas doy na sax jaral nañu suñu bakkan fu ñu xam ne fii lu fi war a développé feebar bi la dinañ teg suñu bakkan ba loolu mu waree. yi ngeen jot a jël naka nit ñi gisee ndax ñëpp euh, ànd nañ ci nangu ndax gis nañu feneen euh, mu am ay euh, xëccoo tuuti wala nit ñi ñàkk cee ànd foofa ca Wakaam loolu amu fa. Wakaam day ñu ngi sant yàlla xam nga ñun dañuy wax commerçant yi dañuy waxtaan. day am cadre boo xam ne dañuy waxtaan bi ñu leen ko waxee ñoom xam nañ ne pour seen bopp la. ndax xam nañ ne ñoom lay jëkk aar balaa maa aar keneen donc nangu nañ ko ñu ànd ci ak ñun ñu koy appliquer chaque jour six heures du matin seize heures dimanche noppalu pour permettre ñu ñëw gën a setalaat marché bi suuraat marché bi bu fa amee ay doomi jàngoro ñu euh, suur di rey donc lu amul tiraillement fi muy am tuuti tiraillement comme ni ma la ko wax mooy chauffeur yi mm. ñooy jéem am ñuy sàcc di kii mais kuñ ci jàpp rek dañ lay au gendarmerie mu mu prière monsieur le maire fi ñuy jeexalee mooy euh, municipalité bi nga jiite ban rôle le joué ci prise en charge maladie ndax euh, gis nañu ñenn dañu naan numéro bi dañ ciy woote ba sonn du ñu am ku leen jël si du ñu am fu ñu isolé woo du ñu am itam euh, ñu leen xëy na seet dafa leen test wala diagnostic ak yooyu yéen ci mairie ba lan ngeen jël ko matukaay ngir xëy na dimbali nit ñi ba ñu gaaw leen a jël en charge. ñun moom bi ñu yëgee feebar bi rek li ñu njëkk def mooy ñu def ñu yoo nan la ñu ci mën a dañu laaj ci technique yi ñu koy defaree ñoo ñu ñu defar ko am na ñaari saal yoo xam ne saal bu nekk ñeenti laal mu ngi fopp ay saal yoo xam ne pour isoler xam nga nit bu ko amee. Mm-hmm. léeg-léeg du ñu ku nekk moo mën ne isoler boppam ndax du ku nekk am sa nekk ku nekk moo mën a isoler wu ba du wàll. pour ku nekk am nga ko ñu jël la yóbbu la foofu d'ailleurs am na ñu fa jot a dem isolement juróom-ñetti laal ñu ngi foofu yoo xam loolu lay jariñ man ñu bëri wax nañ ma ooteetuñ ba sonn biñ yaakaaree ne dañ ko am te bugguñu wàll kii mais nee nañ am na si ñoo xam ne oote nañ ñetti fan kenn décroché wu leen loolu moom lu am la mais am na si ñoo xam ne bii ñu ma ooyee wala ñu oo ñu ma jege dama oo ci saa si médecin chef bu district bi mu diligenté ko si saa si ñu ñëw defal leen test. moom it ñu koy gërëm au passage ndax bi feebar bi amee ba tey moom mu ñuy jàppale bu baax a baax a baax a baax hmm. lu ñu soxla daal mu ngi si tabax taxaw donc may wax ne ku yaakaar ne dafa am ay signes su leen jotu su ma oowee man ma oo ma oo district bi ñu ñu ñëw ñu defal ko test si lu gaaw a gaaw a gaaw hmm. man mii di wax yow def naa test comme nu may dugg si nit yi ak génn rek def hmm. naa samay test def naa test te xam naa dinaa defaat test parce que test yi tamit lu lu lu lu lu baax la. jërëjëf Samba li Diallo ñu ngi lay gërëm amoon nañu mbégte lool dalal la ci matinalu réew mi fàttali ni yow yaay euh, meeru Wakam. jërëjëf yéen it maa ngi leen di sant réew.